sëñ buur mm. kii de Aziz Dabala deewam gii yuux mun naa jógee fuñ ko foogeewul mu ne yuux mun naa jógee fuñ ko foogeewul ay mu ngi noonu soxna aada comme ni mu ko waxee ci vidéo bi ñu seetaan léegi buur yuuxa dana jibee fukk kenn fogewul kërey Abdou Aziz Ba ñu gën ko xamee ci Aziz Dabara ak xale boobu di waali euh, police teg na ko loxo fële ci janatul maxwaa ca Touba biig ci guddi di ab xale boo xam ne nga tudd Abdoulaye Diawo ñu di ko dàkkantele mutlo di ab maçon tudd nañ ci Nabou Leye tudd nañ ci Ndeye Yirim tudd nañ ci feeña tudd nañ ci ku ne lay ñam soxna aada taxawoon fi mu taxaw ne yuuxoo dana jibe fu ko kenn te effectivement yuuxoo jibe na fu ko kenn fogewul soxna aada ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan a billahi min asheytaani rajim rabbi israh li sadri wa huwa yassir li amri waxlul uqdatam buur mm-hmm. maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay mm-hmm. sonaada mbir mi ñoo ko yëgandoo langa nga ci waxoon ginnaaw ba ma la ko seetlooyee mooy yuuxu dana jëmee fu ko kenn fogeewul ki rey Aziz Dabala ak Waly teg nañ ko loxo fële ca Touba. buur buñ demee ba ñun ñuy seet te xamuñu ci li seet lum doon dañ ci maandu woor ci mm-hmm. waaye ñun li seet di wan mooy ki rey mm-hmm. xam na Mm-hmm. te jege na ko mm-hmm. kon bu ñu ko wanee amuñu droit di dugg ci détail mm-hmm. waaye yuuxu bu jógee fuñ ko foogeewul te ñi la wo rayuñu la lu xel di jariñ lu dul xalaat sëñ buur ñiy génn ci internet bi dañ leen a teg bët lool ñi leen yaakaar bëri day dem ba nga xamante ne boo gàttee xel dañ naan kii est ce que du ci ginnaaw jomaay lay fanaan par guddi. ñàkkul mm-hmm. dara. te gis nga nag as gor su gore te góorul ci dara daa naqaree xam. Mm-hmm. as gor keroog bañ naan as gor la mooy ki ñàkk te mën a muñ. Mm-hmm. sëñ buur bu la yàlla defee nga nekk nit kuy ñeetaate. di nga def ëllëg looy réccu. bu la yàlla defee nga nekk nit ku am xol boo xamante ni doo yéene kenn jàmm mm-hmm. dangay nekk ci nit koo xamante ni ëllëg da ngay réccu mm-hmm. ñaar ñi ma la mm-hmm. ki ci gën ki wet gore wettaliku gore mais soxna la da ma des na yeneen surprise waaw surprise yooyu laa comprendre sëñ buur boo déggee man la des na yeneen ndax da nga ni ma yi def ci bari ci mbir mi torop Mm-hmm. lëj-lëj yi def ci bëri li ci laxasu dafa bëri sëñ buur mm-hmm. mani la yeneen i surprise des na yu ci war a génn mm-hmm. ci deegi soo gisee ma wax la ko nag ñun toujours ci seet rek la ñuy nekk xamuñu la ca biir xamuñu la ca biir ndax fréquenté wuñ ci kenn man boo ma gisee man soxna Ada soxna Adam këram la demul dikkul waaye li ko xam-xam di wan ak ci li koy orienté dinga ci gis yeneen te dinga ci dégg yeneen te dina am yeneen ay tegtal yu leer yu ci génnaat. est-ce que yaa may dégg. bu baax. Euh, sëñ buur guddi ya la ñu génnoon. boo seetloo man soxna Adam maa la. Hmm. dafa am rawaan yu tëddul tooguñu taxawuñu. Hmm. te bugguñoo dékkee lu dul ay deret di ko aña di ko reere. keroog it lii nga ma tontu. Hmm. man la ba tax na dañoo xabtal gaa yu bari. ay reyin yu ñaaw di leen gis. ay dee ñaaw di nga leen gis. Mm-hmm. ñuy dox ba mu yàgg ñuy wadde di dee. Mm-hmm. comme ay picc wala ay ginaar. Mm-hmm. nga ne waral loolu. dafa am rawaan ñu dugg yu mer yu ñu bégalul. te nguur gi ñu nekk. ñi ko yor waxal. suñu bëggee jàmmi réew mi. sarax gi ñuy def ci côté géej. bu leen neexee ñu defal ko seen bopp man musuma leen a soxlaal dara. Mm-hmm. ginnaaw ba ñu faloogul laa leen soxlaalul woon asantuma laak ba ñu faloo mm-hmm. ndax kii sonni ci mbir te xamul ndax ñooña dina teddam déet mm-hmm. la ñu amoon ku néew néewoo bëri ngay jël sa moyen bopp di ca liggéey ngir ñu am ndam kon ñooña bu ñu amee ndam soxlaaloo leen dara waaye géej dañ cee war a yóbbu ay nag tuur fa deret ji bégal gaa yi teg leen ci seeni place parce que dërët gi bari ñooña tànk tooguñu seen buur bul ma yàqal mm-hmm. du ngeen tàqale ko gisi deret ak deegu ñaaw ak accident ak ñi dem ci ndox mi kon tuuru boobu fook mu am laajuma leen ko ñoom mm-hmm. bu leen neexee ñu defal ko seeni bopp mm-hmm. nag yooya faaw mu jëm géej rindi leen fa dugal ca ñebbe dugal ca dugub dugal ca mboq dugal ca gerte def ca suukar a xorom hmm. dama ñaan yàlla dëgg bu amul ñu dala rab yi ak yi jóg di jëfrul nit ñi hmm. ñiy defante ak ñaaw téef suñu paree réccu képp a ciy mujj du mujj fenn Sonaada ndaw nekk ci buntu àddina di borom tuur ñaara cat dana ko topp ñàkk kaaraange wala deegu gaaw doo dégg léeg-léeg ñu ne la nitu soo bis bi nattu bi dal na ko mhm. problème yi dal na ko mhm. na diw ak diw ak diw ak diw ci ñi ko gën a jege suñu borom day rey de mhm. <laughs> waaye ñiy pexe di faat ëpp déggoo ma de kon borom tur yi nan lañu war a def soxna xam nga tey ku mel ni Sidou Diop Mm-hmm. wallaay ndog ndog gi ko dal cat gi ko dak mm-hmm. ñàkk kaaraangee ko ko teg mm-hmm. te loolu ba ma ciy wax dikka ëpp na ñaari at dama ni loolu woon jamono ngi ñëw Sidi Diop dina mel melo ni Waly Seck bàyyi dina jéggi dawe waaye amul gàllaaj waaye amul gàllaaj ko bëggee sës ci fa mu a yegg mu yegg fa daa war te gisuma ci moom benn protection man li nit ñi di wax tey koy wax day fekk na waxandoowu woon ak kenn Mm-hmm. waaye nag dañ naan xaayaan ku dégg séeréer ak ku jàpp man samay vidéo ku dem ci ginnaaw mm-hmm. lu ma mës a wax sunu borom tombale na ko ak mu nekk mm-hmm. moom borom kun gisuñu sunu bopp ci li ñuy wax ndax du ñun mbiri suñu borom. waaye sëñ buur kuutul protection ci guddi yi ñu toll surtout nga dëkk Dakar kaaraange barke alxuraanu kari ko aarul sa bopp protéger woo sa bopp jugoo samp sa bopp di dox ak wax lu métti dina la daal. Eh, Soxna tey moom damay may gaay rek butéel bi rek ñu tëj ndax xam naa ne xol bi neexul ba pare may ma ci ma raayu balaa maa génn kër. lépp a laal. Ah. xol neexul. Mm-hmm. sëñ buur. Mm-hmm. ku la fonk dëgg moo la jox butéel bi. ku la fonk dëgg. raay falu. Mm-hmm. raay yokku. raay ubbeeku mm-hmm. raay tëdd di nelaw sa léppi dox kiyee ko man lu fuuree nii doo gis benn sëriñ di koy yëkkati di ko jox kenn ñamal ma ci ne rek ma tàll loxo musal ma ci tuuti rek xam nga man nag laa ilaaha illallah ay azim eh, <laughs> defal mm. na ñëw ah lii musoo li waaw lii koo gis de mm. barke Cheikhul Khadim gis nga ko ni moo explosé. soxna Ada. noonu la say mbir di taaxee say mbuur. laal naa ko. man kay mos naa. wallaay azim. mos na mos naa. Mm. gis nga kii boo ko di woowee sëñ buur. Mm-hmm. ku mos nga mos ku mosul nga mos. Mm-hmm. biteel bee jaay boppam gis nga biñ ko ubbee ni mu def. Mm-hmm. fii ku ne xam na ni boisson nekku fi. waaw gaz na mu ci de. soxna aada moo xam ay. reena ki sunguf. xam ay bagages yi yokku nit. Mm-hmm. xam ay bagages yi yëkkati nit dara dara jaal. Mm-hmm. bëri na butéel yoo xam boo ko raayoo dem ci mbooloo yow rek la ñuy tudd. doo ma mm-hmm. laaj lu tax. lu tax la mu diwoo tax. waaw moo dégg la mu diwoo tax. waaw loolu bëri na kuy toog ñëpp yi banque ñëpp waxtu. nit ñi di say di jëf lu tax ñàkk. boo ko raayee toog sa kër. sëñ buur wala nga tëddi nelaw sa téléphone foo toll kar kar gi dina mel ni tulleeg màlle xaalis sa lay wër doo ko wër sëñ buur eh, dama lay giñal ci mbaaxu yàlla ni la ñaankat yi dañuy ñaanantu ñaankat baa ngi ñaankat bu mag baa toog am na fu ma ko teg mm-hmm. sëñ buur ku ne xam na ni la nga rus ak la nga ragal yam mm-hmm. waaye man boo fesalee sama bopp àdduna bi yëngatu lay dëgg la bu waxkat yi waxalee ma àdduna bi yëngatu taman du ma wax mm-hmm. ndax li ma jëflanteeg ñoom moo ma ko may bëri na ñoo ne la ñuy dëkk soxna dafa mu newoon ba xeelale lii lan la soxna la. di ñu naan la diw daa takk bayre bukki. waaw bayre bukki lii deru bukki la. xaatimu bukki bii. Mm-hmm. karawu bukki lay doon. Mm-hmm. ak deru bukki. Mm-hmm. su ma ca xaatimee ki ngay bëgganteel ba nga di ko teg ci sa kanam nii loo ko wax lay def day mel ni mu xar. tey soxna. sëñ buur. kii boo ko takkee foo jëmee sa jëkkër mu dem fa. yaay ragal yàlla rek nag. mu koy neex ak mu koy naxari. far force la ci kàttanu yàlla ak foo ko jëmee mu jëm na nekk sa digg di balaag rek. Hmm. bu ñuy def dara. Hmm. ñuy na saka nooc tanaan baal ba sama soxna ñëw. waaw xaaral madame laay déglu. loolu foo ko dégg am na lu tax. madame laay déglu wala madame laay. suuf bu sutantee dañ koo jal. waaw loolu legeti kese naxuti bay ay waxi hmm. kese yoru góor. dëgg la de dafa dama dégg gone yi xewal benn way duma ko dindi mm-hmm. c'est pas la marabu sa jë ah, waaw yàllaay dogal mm-hmm. marabu doog a ñëw waaye yàlla wàccul di fajal kenn aajoom leer na waaye nit ba ñuy falu ñe leen doon gerle yori kurus lañ ci doon def yàlla leen koy dëxëñal mm-hmm. ñoom sëriñ si ñu nekk ci dóori perte duñ nelaw xëy di joxe sarax sëñ buur Mhm. ku weddi ni sëriñ amul tëddal nelaw ci guddi yi ñu toll. ñu xool ba xam loola muñ ci rek ngay daj. Mhm. waaye ñi gëm ni sëriñ am na. Mhm. di aar seen bopp di protéger seen bopp. yaakaar naa bala ngaa kër kër yi ba ni këpp ci ñoom di nga jombi. te lu leen waaye yéene mu këpp ci seen kaw. ñooñoo ñi belende sangatu xeer boo boo koy jëf ci yaramu doomu aadama. sangatu vingt quatre heures boobu ngay sang nit mu wéradi. ay tànkam bañ ñam nga ko. ñam naa ndax sëriñ si fu na ngay dem te ku nekk lay xëcc ah, di liggéey. dëgg la guddi yee ñu jàll bañ la liggéeyee bañu naax ba nga ñëwee ma koy composé man laa jëlal leget gi sangu nga naq-naqal man la sangul te ñëw. te wax ma li nga gis. dëgg la de. yaa ngi doxi say soxla. ku dee ak sa bàmmel de. da julli di toog ci fauteuil ak sa aas juddu woo. dëgg la dëgg ak liggéeyee ko man. liggéey yu bon sëñ buur. Mm-hmm. guddi yi ñu tool mm-hmm. may liggéey ci yuutu neew maara day taali ci yuutu neew jafe na de mm-hmm. sekereb noob gënu koo aju gënu koo kawe ñi palaafonee xam ne may wax muy góor yàlla yi liggéey te liggéeyantuwunu mm-hmm. sëñ buur sa digganteeg sa borom secret yi may wax ci ñaan yàlla ban sëriñ ko dégg mu di ko wax dégguma ci kenn te mu jëy juddu waaw ah, ak li ngay doon doon jigéen mujjee juddu mujjee génn ci internet. Mm-hmm. li ma yor ci secret ki mbóot maa da day taale. Mm-hmm. lu ko waral. Mm-hmm. walaw kunta fi burusin musayyana. sëñ buur. Ahmadu Xadim dani. minal mahdi ilal lahdi. am jàng du wees. te boo bëggee góor ci dara. jaam yi am yakar ci yow ginnaaw yàlla. heure buñ la fëggee nga jariñ leen. da wàññi dibi geeg ginaar gi. ah dibi ginaar soxna su neexoon. Ah, koy wàññee kilim bu sedd bi nag. ah dibi ginaar hmm. xam nga lu mu lay waral. Hmm. gàcce. muy nit ñi dinañ lay fëgg ci xam-xam yu bari hmm. ngay layam layami te doo xam lay régler problème yi. gis nga yuutu ne wow soxna Aadamu toog xaatimal la ba bàyyi nga fexe ba daanu jël ci sam ndox boole koog loolu fexe ba ki ngay seel naan c'est fini. da ngaa dégg néew kuy wax. déedéet. ña dem da ngaa déggati seeni wax. déedéet. sëñ buur kooku bu noppiwul kuy noppi bu toppewul kuy toppe ku sañ ta bañ sañ a nangu. Eh, aga sadik kon sax na nag kon waa Afrique na añ bi pare. waaw mais sëñ buur déeg yi dafa nekk soog ci man nekk lu ma naqari. ah te pourtant avertir nga ba tàyyi de dañ laa dégluwul. sëñ nañu wàññi xaritoo geeg duggalante geeg génnalante gi te waxoon naa la ko hmm. laataa deeg yi feeñ hmm. xarit yu bees te nan la fekk ci appartement yi ñee la teg la bët hmm. day am ñoo xam ne suñu borom moo leen taal nit mënu ci dara bu ko defee ñu defe ne denc nga lu dul jeex te bu sama genre gi nga xamante ne dañ leen a yar fa leen war a yare lekk mbaxal ak sombi ak cere dox ak naan ci mbiskit mi defuñu ko muy dara ñooñu boo dundee ak ñoom da ngay defe ni jeexaluñ dara te foo tekk di leen ñaan di leen àbb te fekk tanewuñ la dëgg la askor lay gore nañ mm-hmm. rafetalaat jikko yi mm-hmm. nañu gëm yàlla te gore te yéenante jàmm mm-hmm. bu ñu yéenantewul jàmm li ñu bëgg suñu borom defal ñu ko Jomaay ak Sonko dañuy liggéey ba deeta duñ ko am kon waa axiru dawaan an alhamdulilah wasalaamualeykum wa rahmatullah sëñ buur waaleykum salaamu wa rahmatullahu wa barakaatu